loolu ndax fii ñu dëkk ba léegi tuurum ndox mbedd dafa am amuñu assainissement amul éclairage lu bare bare bare bari daf fi wuute financement des femmes man bu ma toogee léeg-léeg gis ab DG wala ab ministre woote ca koñom xëcc directrice FONGIS wala mu xëcc kaneen mu ñëw foofa financé la ko ay femmes ay cinquante millions ak damay am lu ma miti loolu nag dama leen ci woo ndax gox bu amul ko ko teewal ca fa ñuy décider du mën a yóotu indi fa ngir jariñu ci gox day am ñu ko teewal ca kaw ña teew fa ñuy seddalee nag ñooy mën a tibb indi ngir seeni waa gox jariñu ci ak lu mën a xew ak lu àdduna yëngu-yëngu ak lu mbiri jaxasoo jaxasoo bu guddi jotee Cité Lamy laay fanaan si kon nag awma lu dul waa Cité Lamy awma lu dul Cité Lamy awma lu dul jigéeni Cité Lamy aw ma lu dul samay kilifay Cité Lamy ta nga xam ne yëg naa ne fu ñu toll ñoo ngi ñaanal loolu nag di ñaan ñu dolli ñaan yi ngir ko li nga xam ni mëbët nañ ko taxaw nañ xeex ko yóotuñu ko ndax dak wolof danaan ku ñime dañ laa déey mais gis naa ni kat déey ngeen ñime nañu ndax déey ngeen ñu te li ngeen ñu déey nag bu soobee suñu borom duñu ci des ginnaaw lépp loo xam ni bu ñu ko mënee indi fii di ngeen gis seen bopp ci mbir yi ndax dara ñoru leen lu dul xale yi. dara ñoru leen lu dul kër yi dara ñoru leen lu dul seen njaboot bokk ci njaboot yi décidé bu ëllëgee loolu nag incha allah daan ci xeex ngir ko suñu gox bokk ci gox yi nga xam ni kenn du fi dégg agression kenn dootu fi gis tuur ndox ci mbedd kenn dootu fi gis koñ yu lëndëm kenn dootu fi gis jigéen ñu ñu dul financé kenn dootu ci gis xale yu dul liggéey kenn dootu fi gis xale yu dul jàng loolu mooy suñu yitte te daan ci ànd ak yéen di sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah gouvernement bi nga xam ne président publié na ko ñun lu rafet lañ ci gis et di xaar incha allah ñi ñu fal ñu xam ni temps bi bariwul ndax vrai 24 mars nañu wax élection mais ce sera au delà mais ñu ànd xool nan la ñuy accompagner pour que li fi wax léegi ci formation ci accompagnement jigéen ñi ak assainissement bi ñu fi wax ak lépp ñu mën ci trouver saafara ànd ak ñoom régler ko incha allah pour le bonheur pour may ndam président Macky Sall ci diggante bu gàtt bi bu ko fi desee mais que ñu permettre ko mu la grande porte merci. di nuyu tamit sunu càmmeñ yi ay dara sama borom kër macha allah muy homme de développement laa ko tuddee parce que Cité Lamy moo ñu njëkk wutal formation moo ñu njëkk wutal financement muy ay dara mii macha allah ci Cité Lamy gii suñu fa jógee ñu dem ci Baara Jaxate suñu frère nga xam ni moom tamit ci tànk yooyu Odou jaar ci yàlla jaar ci ñun fu mu toll mi ngi wut moom tamit loo xam ne daf ñuy développé ndax tey dañoo nekk ci mois de mars. di suñu weer ñun jigéen ñi tey jii di journée internationale de la femme ñu war cee sargal suñu bopp kon ñun koñ bi ñëpp macha allah ñu tudde ko unisson pour se développer ñu ñëw ne tey suñu bis bi ñun ñii kenn ku nekk amul ku bokk fee amul ku bokk fële dañoo war a booloo pour mën a suqaliku ñu mën a booloo pour mën koñ bi ñëpp ñëw macha allah ku bokk fii ku fii ñëpp a ñëw am na ñoo xam bokkuñu sax ci mbootaay yi mais ñoom sol yére kon jigéen ñi maa ngi leen di sargal bu baax tàccu leen seen bopp macha allah jigéenu Cité Lamine ci xol yu rafet ak yam bi ak sañse yu rafet yi ak daar bi allah ñuy wax ne ñun nag thème dafa nekk thème boo xamante ni mooy ñu booloo boole suñuy doole pour mën a suqaliku thème nag. loolu nag ñu ngi ciy woo suñu hmm. yaay yee toog muy temps ay tasaw ak temps su faal ñoo ngi leen ciy woo ci loolu bëgg nañu ay formation bëgg nañu ay financement ñoo ngi ciy woo hmm. Odou Aydara ñoo ngi ciy woo Baara Jaxate hmm. moom tam ci parrain yi la ñoom ñëpp ñoo ngi ciy woo tamit Matar Jaxate monsieur le maire Pape Bassirou Diop ñëw na fi léegi ba dem moom tamit ñoo ko ciy woo macha allah. ndax ñun bëgguñu lu dul suñu amee suñu soxla faj ko ndax Cité Lamine ku leen xam-xam ne ay ay ay femmes battantes lañu su suñu xëyee ñii ñi ngi dem di bëccëg gi macha allah journée bi ñu baree bari suba gi lañ ko def mais ñun mënuñu koo def suba gi ndax bu ñu xëyee bayal bi dañ fi lal di jaay ñii lal seeni légumes mi fee di jaay macha allah ñii dem bëccëg gi kon ñun ngoon rek guddi rek lañ mën a organiser suñu programme parce que fii benn jigéen toogu fi ku fi toog sax liggéey woo sax yaa ngi ci sa biir kër ndax damay wax ne jigéen ji nekk ci biir këram di bale di defar di toppatoo njabootam sax war naa sargal boppam tey ci bisu 8 mars bi ñoo ngi ñaan nag jigéen ñi góor ñëpp macha allah sunu borom kër yi ñoo ngi leen di nuyu yéen tamit di leen ziar di leen wax ne jigéen ñi ñoo ma yóbbante nee nañu na góor ñi yokk dépense yi ndax marché bi dafa metti loolu la jigéen ñi yóbbante nee nañ naa ko wax góor ñi macha allah ñu ngi sant ñëpp di ziar ñëpp kontaane ñëpp. de yéen ngeen ay jigéen yoo xam ne ngeen dëkk seen koñ am xalaat bi di ko defal seen bopp donc tout le mérite vous te ñëw ngeen ba kër ga ñu waxtaan ci te ñetti fan ngeen ko wax naa ko léegi ba lii ñëw bu ñu ko préparé woon ay weeri weer dina gën a romb fii moo ko man nag sama participation laa leen bëgg a wax man dama gëm développement honnêtement loolu laa gëm parce que man li ma gëm mooy lenn li ma njëkk a mooy fi ñu toll nii jigéen warul def ginnaaw parce que jigéen comme ni ñu koy waxee toolatuñu foo xam ne autonomisation tey def nañ benn thème bu mag au niveau ministère du waxtaan waratuñ yem ci autonomisation loolu c'est dépassé maintenant maintenant jigéen ak góor yàlla moo leen boole ci àdduna jamono dox ba heure bi ñu toll maintenant ñoom ñëpp ku ci nekk lu góor mën jigéen war na ko mën man loolu laa gëm toll ci loolu laay dox bu dee ci wàllu jàng jigéen lu mu jàng góor mën na ko jàng man yor naa fi étudiante université Bambey pendant cinq années comme professeur mais cinq années yëpp jigéen ñoo jël paie di ëppale ay notes yu baax ci ci ci ci seen njàng nga xam ne kon jigéen warul def ginnaaw mun naa ci cité sax ci kon bi doomu benn suñu benn sœur kii Thiam bu nekk école je pense formation eaux et forêt Anta Thiam xaw ma Ndeye loolu tudd man loolu laa gëm bi ma ñëwee bi nga waxee lii ma d'accord ci ak yéen man nag dama am sama benn réseau de développement bu ñuy wax Rega PDT yàlla suturaal na ma am nañ ay financement yu bëri ak ay organisme mais xam nga dëkk bi taay ni mu demee ak yi moo taxoon ñu demoon yu bëri yu téye maintenant li ma leen di proposé mooy ñu ànd def link mooy dajaloo entre le réseau Réga PDT ak yéen seen plateforme bii ak waa Baara Diax dëgg jigéen ñi dëkk ci koñ bépp on a des financements qu'on a déjà de en formation dès demain wax naa ki yor a xam li ma gëm mooy leen yéen actuellement def nga information yu bëri mais amagu leen information en éducation financière mooy nan ngeen di yore xaalis nan ngeen koy téye nan ngeen di fexe mu amal leen njëriñ ba mun leen jural lu bëri am compte bancaire ba mën a dem formateur bi demain 17h dina ñëw kër ga dajeeg Bintu Ndiaye ak Bali ngeen d' seen jigéen ñi ne plateforme bi yëpp ay par 15 15 ñu di former fii ba weeru koor bi di jeex ngeen am une formation éducation financière. ak Bintu Ndiaye ngeen indi seen liste ki leen war a former ak Aïda Diouf ngeen toog ngeen def seen liste ci biir koor gi ñu former leen éducation financière. parce que léegi boo bëggee ñu financer la i faut nga def formation éducation financière mën ngeen ci laxaale waa Baara Jaxate yi parce soo leen defee ngeen def loolu ba pare ñun formation yi ñu amoon ak militaire yi tey changement de gouvernement yam ak yooyu moo tax ngeen ñëw ñu jël ci ñi xam ne am na ko ñu jox leen ko ngeen def ko su ngeen pare ngeen def labellisation def euh, formalisation mën a dem nag dugg ci beneen palier bu bokk ak kii parce que aussi baal yi neex na trop yow tey nga yor sa prise di jaay pendant juróomi at te dépassé wu fi nga nekk war nga am cantine war nga am conte bancaire war nga mën a dem Dubaï war nga mën dem feneen loolu boo ko il faut ñu former la ci tàggat la ci ba mën ko gëm moo la ñu am leadership féminin nga mën ci def man loolu laa gëm bu loolu weesoo ci programme bi ñuy liggéey jëm ci wàllu assainissement bi ni ko Baara waxee sànq dañu am nañ daay affaire tour ndox si taram yi moom dina fi dàkk incha allahu rabbi loolu moom maa ko wax dina am projet boobu bind nañ ko ba pare ak université science de l' ingénieur bu Thiès dans le cadre ba d' xam ni ñu koy defee ba ba amoon autorisation direction de l' assainissement mais malheureusement amuñu woon financement bi mais actuellement nii projet bi génnewaat nañ ko teg nañ ko am nañ financement bi dañuy xaar Sénégal jóge ci élection yi rek ak ministre bu bees bi ñëw ñu ànd ak ñoom ñëw indi puisard yi au niveau de Fitalam yi ñu kenn dootul tur ndox ci mbedd mi loolu moom dina fi jeex incha allah